suñu jàppante maa la mën. Hmm? man ku ma xam non a ku ma xam ci loolu laay dox man aw ma mbër bu may taxawal di am ci yow ay xel ñaar ak ay lii laay moytu wala lii wala lii non non jamais non su ma naree dem loolu sax ma dem xooli leneen non. mais mais am benn góor bu ma caaxaaral maa la mën. Hmm? waaw mais bañ ñëwee bañ ñëwee foofu mag la bi sekk daa am loo ñu waxoon. Hmm. mooy Sénégal dafa am yi nga xam ne dañoo nekk ci làmb ne Modou loo sikkam këm mooy ñàkk arrière ci làmb. ndax mën nañu jàpp ne Modou Lo mi bu ko Ama Baldé gëddee du ko arrière al. waaw de lu mu laaj làmb ji lu mu laaj dinañ ko def mais làmb ji moom gëmuma ne laaj na arrière incha allah kon kuy ñëw la kay ñu ñëw ñu day rek. mais Ama ak ndel ak ndel bi war a a xëppoo mais gannaaw sa version rek euh, làmb loo <laughs> mais gannaaw da nga wala lu mu dee noonu. non sa ci lan. mooy ma ni la làmb ji laa wax laajul arrière bii kay ñu daje la incha allah. je pense amul te mbër bu toole fi du wax je pense que. <laughs> je pense naa. yow xanaa xanaa xanaa xanaa déggoo wolof wala déggoo li ma wax. yaa ngi fi un moo dese un mois weer. dama la man am rëdd yàgg na xam nga yow yaa ne ci udum doole nga toll. non mbër fu mu toll day après woo ji wala ñoo nii man dama la. Modou Modou mbër fu mu toll day ut doole. mbër moom doole du doole non lay wax. man am rëdd laa la wax man pare naa. waa nice. All a tey kay lañuy. loolu lañ koy ñaan bu pareewoon. ama mu ngi ama mu ngi xool Moodu di ree Moodu di xool. parce que bëgg naa. bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa mbër. xam nga ku sañ ku sañ boo doon bëreeg bu pare cent pour cent. ay ñëw bëreeg mbër xam nga muy kala kala ji wala lii matul wala lii matul. ñoo ki nekk ci forme xam nga boo ko daal lay doon. yow moom loolu sa débat la mbër boo bëre ne ko parewul yow moom loolu moom sa slogan la loolu sa slogan la loolu moom loolu sa slogan la loolu nekku sax dañ koy calculer wala dara mbër boo mbër booy bëre naa ko parewul loolu dañ la koy nangul yow yaa pare yaa oye ban mbër ban mbër nga dégg ban mbër nga dégg may bëre moom ma ne ko parewul ban mbër yow bëri na fi baal ngeen ne ko sa biiru dañ koy asak lu nekk pare woo ah, xam na loolu yow théâtre la la gëm moom la gëm rek lu mu gëm moom na gëm ne athlète la na gëm ne entraînement kat la na gëm ne day concentré wu si entraînement na gëm lépp na gëm lépp na gëm lu mu gën. loolu ak lépp fii ku nekk sa fii ku nekk sa préparation ku nekk na nga gëm li nga gëm rek. comprendre ah non sama ngëm-ngëm kenn jëlee. bës ngëm-ngëm kenn mënu ma ci jëlee. bës bës ku sa kër. nga ne nga ne Modou Lo sa or la. sàcc du dugg si appartement naan maa ngi sàcc. bugul sàcc. mbaalu affaire bi da ngay sàcc affaire bi nekk la rose jaru jaru jaru jaru jaru jaru jaru mu ama pare na wal pare mo pare mo way ma mun ki jëm ji ma ko mun ki sa wala xam na jeeg buy xam na jeeg buy sey ci kër day bëgg ñu teral ko or teral ko jëmaa teral ko lépp kii sama or la moo tax bëgg ko di ko nëmm chaque jour di ko bëgg gis sa or sa or dina la jàpp caxat caxatee la nga ni sa no yow da nga yawaat góor avec plaisir góor góor góor la avec plaisir na caxat caxatee man góor la waaye dooma daan j mun na ma duma ba sax la ma xewi waram dama maa la mun yow oye yalla baax na yàlla may talak fek loolu waxu mbër la rek da nga tok jàkkaarloo ni rek di wax bu ñu fek fek la tok ma tok yow do wax loolu man sama sama live la la mun na ma xamee lépp ba mu des waxantu laa la wax man do wax da da da da ngay wax loolu da rek man do wax billahi da da wax loolu da rek no da ngay wax loolu neex rek am nga tok contane ni di wax amna da ngay wax rek li ngay wax nañ yàlla may talak fekk wala cinq rek incha allah di nga wax leneen la cinq mais du lii. ah mbër bu toolee weer kontaan moom sant yàlla la moom boo la dawal la dawal nga pour béyal sa nga pour dala say xel supporter rek. mais li ngeen xam man Modou man utuma lu ma lu si nii man yàlla rek laa gëm utuma lu neex. dawal la saa waay fii gënu fi gëm genn yàlla. loolu gën gëm waaw lu neex ni ay lu non loolu utuma ko. dawal la mais li ngay wax dawal la. bala cinq lépp na leer. jarul wax bu bari wala sañ loolu loolu ndax di ko waxaat incha allah. Moodu loolu rek laa yaakaar ne Moodu. dañ ci yàlla yow ak jaamu incha allah. waaw ah, allahumma amiin na ñaanal ñu rek bis bi a kii ñu aar bis bi xam na taaral aar bis bi ba bis bi bañ a yàqu man loolu laay wax man loolu chaque jour man loolu laay concentré wu nañu aar bis bi. ñun duñu yàq bis. muy man muy man muy